Après plusieurs heures passées en mer, les pirogues commencent à regagner la terre ferme, sous le regard d'une foule panachée, pressée de mettre la main sur le butin des revenants. Visiblement, la pêche n'a pas été fructueuse. On se dispute les maigres prises. Les plus offrants sont les plus chanceux dans cette bataille pour la survie, car tout ce beau monde est dépendant des revenus de la pêche, un secteur rongé par une crise sans précédent. Ici à Kayar, le mal est manifeste à tous les niveaux de la filière halieutique. Le quai est en train de mourir de sa belle mort. Parmi tous ceux qui interviennent dans la chaîne, Les femmes revendeuses sont les plus touchées par la raréfaction des ressources. Ces braves dames, dans l'incapacité de fournir autant d'efforts que les hommes pour mettre la main sur le poisson, se contentent de miettes. amuñu fu denc jën bi sunu saamee fii ci suuf ndox mi ñëw yóbbu ko amatuñu baana baana gisatuñu kenn da ngay xëy suba nekk si géej gi di daw ba ngoon jot doo wàcce sax ñaari junniy mat sonn nañu lool jigéeni Kayaar yi sonn nañu torop ku ñu dimbali ñu jël ko. Cette chute des réserves halieutiques du pays est en train d'appauvrir de nombreux ménages dans la commune de Kayar. La pêche étant la mamelle de l'économie locale. Ah, sonn rek ndax ñun amuñu lu dul géej yaakaaru lu dul géej ay doom yi moo lañ yor suñu jëkkër la ñëw fekk leen si géej gi suñu doom juddu di dem géej xam nga bu géej gi amul jën rek dañuy sonn. 3 jours a ngi saa yu ma ñëwee perte 2500 wala 5000 dem À l'autre bout du point de débarquement, une cinquantaine de pirogues est arrimée. Certains pêcheurs ont décidé de ne plus larguer les amarres à cause des pertes sèches qu'ils subissent depuis un certain temps à chaque fois qu'ils prennent le large. géej fi mu toll nii day sama métier mënu ma ka bàyyi te maa ngi bëgg a aase mais bu ma gisoon tuuti lu ko teree di bàyyi ndax dama cee ñàkk espoir cee ñàkk yaakaar mais boo demee ba boo boo defee frais bi vingt mille vingt cinq mille trente demee doo ko indi géej rek lañ xam xamuñu laneen mun noo bay mun noo maçon mun duñu chauffeur duñu laneen géej kese Les facteurs à l'origine de la décadence de la pêche artisanale sont multiples. Selon le coordonnateur du CLPA de Kayar, la surexploitation des ressources est la principale cause de la disparition des poissons des côtes sénégalaises. Il dénonce l'anarchie dans la délivrance des licences de pêche. Sénégal ak Chine kon bu chinois mënee am jën napp si senegal mooy danoo violer loi senegal ay sénégalais yu dëgër fit ba mel ni man ñooy jóg ne bato yi ñoo leen moom état du senegal xam nga sénégalais bu ñëwee laaj ñaan licence de pêche yoon may nañu may ak licence de pêche mais sénégalais bi ñaan licence de pêche moomul bato bi muy ñaanal licence. sénégalais na ñun mooy jël suñuy rangooñ boole kaak ay rangooñam dem jooyale ñu wëlbatiku faje ko ay rangooñam ñëw dinu jooyloo te ñun xam nga lu ñuy lu ñuy laaj. pour affaire bi jeex dañ ni la pavillon sénégalaise. D'après lui, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières risque d'aggraver le sort des pêcheurs. L'écosystème marin sera fortement perturbé, ce qui entraînera la fuite de certaines espèces aquatiques vers d'autres horizons. Exploration gaz ak pétrole parce que ay puits yu la te bruit sonore bokk na si li gën mën espèce pélagique bi si des mooy mais ay ay ay ay plateforme lañ teg plateforme yooyu noonu am na espèce yoo xam ne lumière da leen di dàq am espèce yoo xam ne lumière da leen di xëcc léegi espèces yi lumière di dàq ñoom seen zone trajectoire bi nga xam moom lañ doon jaar di migrer am na rupture yi lumière di xëcc ñoom day foofu day doon seen zone de concentration après ñun la yow mool bi rayon de 500 mètres bul ka bul fa napp. Au-delà du pillage du stock de poissons du pays. Voici un autre facteur qui expliquerait la crise dans le secteur. Il s'agit des mauvaises pratiques auxquelles s'adonnent certaines communautés de pêcheurs du Sénégal, d'après ce marailleur. Ah, bu dee ci ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gox yi di napp ak nekk meeg ay mareyeur boo am na jëfandikaayu suñuy mbokk moom di jëfandikoo yoo xamante ni yooyu tant que mu ngi amit jën bi day gën a wàññeeku parce que impact bi du du saxaare rek dafa amaat ci ñun nga xam ne ñun ñooy pêche pêcheurs yi da am suñu biir. yeneen jëfandikaay yoo xamante ni bu dee ñu koy jëfandikoo ci géej jën woowu du mën a bari day wàññi ko rek dootul mën a bari ñun Kayar benn budul budul fiile budul fiile bii bi mbaal fi laa tourné pêche à ligne la ñuy def dem léegi ñëw léegi loolu la ñuy jëfandikoo ci géej jëfandikoo leneen am na ñoo xamante ni dañuy jëfandikoo lu mel ni ay fiir ñen ñi dañuy yor filet dormant ñen ñi dañuy yor monofilement Kayar sombre ainsi dans la misère le désespoir tenaille les pêcheurs dont la plupart ne font plus rien, à parvenir tous les jours sur le quai pour passer le temps. Une occasion de se remémorer les belles époques du quai. mu toll nii dëkk bi daal moom fi mu toll nii boo bëggee dégg-dëgg moom doy na waa trop trop trop parce que ko xamoon Kayar mi noon Kayar bu njëkk fi la ñëpp doon daw doon si ut si mais fi mu doy na waa trop. ay at yu yu yu yu yu avancé tuuti ci ci ci ginnaaw doon nan gis suñu bopp ci géej bu baax a baax. mais dem nañ ba fi mu toll nii toll na toll nañ ci géej foo xamante ni gis nga gaale ni ñu mel ci tefes gi mu ngi nii kenn ñemeetul jël benn risque pour dem géej. bi ñu gënee nekk ay gune sax moo ci raw nga xam ne boobu sunu nijaay ak sunu papa yi ñooy dem géej mais boobu géej kayaar ñu yaakaaroon loolu du jeex moom lan danoo yaakaar ñun ñu xel loolu du jeex parce que ni mu daan baree moo jéggi dayoo. Le caisse vide de son monde. Des dizaines de jeunes pêcheurs sont partis en Europe à travers les migrations irrégulières. Beaucoup ont péri dans l'océan lors de la traversée vers les îles espagnoles. waaw am nañu des si géej parce que fi ma toog di wax yow depuis le 9 octobre la suñuy njaboot jóge fii sama jarbaata nga sa samay doomi maga nga sa ay jëkkër ak jabara nga sa ay euh, doom nga sa yaay ak dooma nga sa ay famille ñoo ne ci gaal depuis le 9 octobre amuñu benn nouvelle ci ñoom. boo demee ci école yi nii ah bon seen maîtres yi su ñuy def sax rappel élèves yi ñaata élèves la ñuy am xale boo laaj ñu ni boo ay 16 ans 15 ans 14 ans 12 ans yëpp dem nañu. Ceux qui n'ont pas encore tenté l'aventure mortelle n'excluent pas l'idée de faire le périple si toutefois la disette s'accentue sur Kayar. dafi leneen mooy jël gaal dem. différence bi loolu mooy def leneen de bee mu lan loo fi def loolu xam nga neexul nga toog amoo loo jënd amoo loo dunde daa métti quoi. Au périmètre dédié aux femmes transformatrices de produits halieutiques, tout tourne au ralenti. Les activités naguère florissantes meurent à petit feu. Beaucoup ont d'ailleurs abandonné les fumoirs. Maintenant, transformation est devenue pauvre. parce que amatuñu lu ñu liggée moo tax nit ñi wàññeeku bu baax fii da nga gis nit ñi tubaarkàl la neuf abri moo fi nekk abri boo dem day fees dell ak ay nit mais léegi mënatoo am téeméer lépp ensemble bi sur trois cent vingt cinq familles mënatoo gis nit mënatoo am téeméer. à l'image de Kayar toutes les zones côtières du pays subissent de front les conséquences de ce malaise dans le secteur de la pêche. Les paléoclimatologues prédisent des lendemains bien plus mornes. D'après les scientifiques, d'ici 2050, les prises de la pêche diminueront de façon drastique sur l'échelle planétaire en raison des méfaits du changement climatique. L'Afrique sera sans nul doute le continent le plus éprouvé.